asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Baba Kounta Diouf fii ci Touba nag dañ may wooyee Baye juuf Baye Diouf lañ may wooyee waaye maa ngi tudd Baba Kounta waa teewaay li may jëkk a présenté sëñ Ousseynou mi sëñ Ousmane Sarr mi laay jëkk présenté di jëw nañu sëñ Mountakha jiite kaamil bi kee di sëñ Bayo di imaamu jàkka ji teewaay bi nag li ko waral du leen lu dul euh, sunu borom moom mooy seet lu ko neex mu koy wan ku ko neex ñun dañoo ñibbi dañoo ñëw premier safar màggal si biñ ñëwee premier safar màggal si di talaata doog fa talaata àll ba alxames àjjuma ma woo wàgga si mu taxaay ñu wàcce kaamil àjjuma ñu wàcce kaamil ñu daloo ko ci guddi ga ma génn gudd na lëndëm na tar na lu ma fa dugal xaw ko lu ma fay génne xaw ko gisuma bunt waaye ma toog ci biir ñag bi ba si yàgg aw bëy di dox benn baat ko xamal ma ne ma bëy wi de mooy bëy wa sëñ bi wecce woon xar ñu rey ko ci màggal gi ok ma ne ko dinaa ko jàpp euh, jàpp googu nag andil ma jafe-jafe yu metti ci wàllu man coono te mënuma ko te te te du sottiwut ba si yàgg am benn góor gu ñëw ne ma dañ lay nax euh, du moom am geneen góor gu ñëw ne ma kooku iblis la waxul dëgg béy wi la ñu digal ma naa ko sànni xorom te musul ci seytaane moom la bu ñu waxee loolu ah ko ñoom ñi ñaari baat yooyu kenn ku ñu dem ma des ak bëy wi des ak bëy wi ak coono yi li ma gën a yéem la ci mbir mi maanaam ñag bi la fa di ay jam-jam ak i tartar mooy xalangoog bëy wi di mbëkk ci biir ñag yi waaye ba léegi eh, yëguma benn yoon boo xamante ni bi daal sama yaram eh, am na lu ma jam lu ma metti yëguma benn métti waaye fexe naa ba jàpp bëy wi ak sama loxoy kese foofu ma demandé buum am ko ma andil buum gu ñuul ma takk ci bëy wi fi ma ko takkee nag takk ñaari tànk yi takk ñaari tànk yi ba leewu ko ni di dem ci laa ne na ko yóbbul sëñ bi ci laa yeewoo ma xëy nag di wax ñu wax ko sëñ bi yëgal ko ko te mu tax pakal la ñu war na def nag léegi dem yóbbul ko ko wala jënd nag ak yëpp ñu ne ma nañ ko dinañ def loolu am ku ñuy wax malaaka sëñ Alaaji Buso ñoo ko nettalee mu mu tekki ko comme quoi que ñag bi dem mooy faw sëy ni bu fekkee boobu maa koy nekk si kër Saaliw waaw da ngaa war a da ko war a rey rek saraxe ko ok kenn ku ne di wax waaye ñoom ñëpp kenn ku ci ne eh, ba ci sëñ eh, maam xam si Dramé kenn ku ci ne eh, tekkil ma daal waaye sentiruma ci sama yaram ne liñ may tekkil noonu laa war a def sentiruma loolu comme que sëñ Maamoon Bousso mii dund la te baayam waajuram bu góor moo joxe woon béy wi ma eggee ko alxames ba sedd àjjuma mun ne waa ma xool ko ma xool xool ko ma woon ko image ni ma ko foto ak ni ma ko nettalee mu ne sama bàyyi de ma ko nettalee mbind maa ngi ci man euh, naa la ko xoolal suba si àjjuma ji da nga fiy ñëwaat ginnaaw bu ñu jullee àjjuma euh, ca timis ma dem fa mu xamal ma ne ma loolu nga wax noonu la demee béyu la. léegi nag la nga koy def dangay ngay dem nga wàcce lu kaamil euh, ñaan yàlla ñaanal sëriñ bi def ko àddee sëriñ bi te jàng alxuraan te def ko ñetti ñetti ñetti cër boo ko defee ñetti cër benn bi nga jox ko sa dëkkandoo yi benn bi nga def ko sa bopp benn bi nga indil ma ko ma def ko ca daara ja bi ma xoolee nag bëy man may gis bëy yi ni mu mel ci melokaan li ñu ma woon si gént laa gis waaye na muy réyee moom li ma gis rek laa mën a jënd ma daal di ne kon naa ci boolem xar loolu ma boole ci xar ma wax ko tàggu ko itam ne ko kenn ku ci sab saam mën am mën a am njariñ kii njariñ mu ne waaw bëgg am yoolub xar bi yoolub dafa rey na ma kon bëgg am yoolub xar bi yoolub bëy moo tax nga nag doo boo ko defee it ba tey baax na loolu moo indi mbir mi man nag sëñ daal moo yéeme kenn ku ne la nga baax rek la la bokk ak yow ndaxte eh, mbir bi moom seen tuuma woon ne naa ci xam ay nag euh, bu ma seetloo boo flashé baak ci ñaari mbir yu xew ci man ci ay doom euh, ni tax ñu am tur wi ñu am kon noonu la ma demee parce que bi nga xamante ne bi màggal mi màggal Tuubaa mi judd na sama doom ju màggal Tuubaa judd na euh, tudd bugguma koo tudde màggal Tuubaa sëñ Mourtala laa ko yéene woon a tudde waaye may dox di yóbbu ruy bi may yóbbul yaayam dernier ruy bi ci euh, kale USB bi may déglu sëñ Sam Mbaye ak sëñ Saliou woon ci sëñ Saliou di wax ci màggal Touba keroog yow ma xayaam boo xam ne date amatul waxtu amatul waxtu wañ da def màggal Touba boo see kenn ku ne fa nga nekk ci say xiiwal dina yëngutu ba nga laaj lu xew ñu xamal la ne la waxtu wañ daa def màggal Touba moo ñëwaat ci laa taawir ne kon màggal àjjana am na lu ko dàq kon màggal Tuubaa ko dàq te may nekk bitim réew itam di dépaysé juróom-ñaari at yi ma benn kilo banaana ba màggal Tuubaa ñëw te yëguma ko ba tiit kilo banaana wóor fu nekk bu ñu wax taala ko yàlla yërëm ñu màggale benn kilo banaana keroog yëpp ma gis ko beneen bi moo di itam ki ma tuddee soxna Aminata Lo li tax ba tudd ko soxna soxna Aminata Lo xese bi ñuy wax ci parce que am naa kër ndey boo xam ne ay jigéen ci am naa kër baay jigéen ci xese bi ñuy wax soxna Aminata Lo ne bi dogal bi ñëwee moom moo nungoo dem bàyyi ko tedd ki eggale liggéey bi loolu laa ko bëggee ba tax ma ñu tudde ko doom kon lii du ma bett ci Sëñ Tuubaa lii du ma bett ci ma gis ko ci mbirum Sëñ Tuubaa waaw te leneen leneen xam naa leneen a ngi ñëw waaw parce que dama gëm lu sëriñ bi nag waaw bu jaa bu dëgg de bu jàll yëpp jàllee góobalu sëriñ bi benn bañ naa ko ba euh, li ñuy jàppee am at at ba at xam naa ay at a ngi fi euh, calendrier yaa ngi fi di wax ay at du ma tudd du ma du ma ci sori waaye man sama atum bopp man màggal bu màggal laa jàpp ne mooy sama atum bopp waaw laa jàpp sama gudd fan si laay joxe it asaka màggal bu màggal loolu moom kenn musu ko wax musu ko wax di dëgg. kenn mësu ko xam ne waaye màggal bu màggal laa laa joxe ak laa génne asaka waaw li ba sëñ bi wax rek képp ku gis photo bi ci réseaux sociaux yi nga bañ ko sikki sàkka nga yéene ci sa bopp yéene ci sa njaboot yéene ci mur gi ñaan sa soxla te xam ne bëy ba moom tegoo ko bët melokaan wa xëy na laaloo ko waaye melokaan wa na mel moom photo tegoo ko bët moom loolu moom sëñ bee ko wax waaw ka bàyyam joxewoon bëy wi moo ma sant lii may def nii waaw te sëñ Muudu sañ Muudu Bousso moo ko joxewoon su ko sëñ Maamun mu jox ko sëñ mu laay ñu war ko yóbbu sëñ Tuubaa te kooku mooy doo waay doo kii am bu góor <laughs> doom bu góor mooy imaamu Tuubaa di sëñ Maamun Bousso moom lañ ko yóbbul fi mu nekk bu ñu paree ci lii ñu def nii dinañ koo wax dañ ko yóbbul itam ni ma ko sante dañ ko defee noonu ba bëgg ci laabiré nag murit yi parce que sëñ noonu na yéen murit yi saaba yi ñoo seen baaj yi ci diine kon nag laabire gi rek moo moom moo waral lii waaye bu du woon loolu sax mu lii na koo bañ a jar leen daal laa xam ne murid moom murid bu ne war na koo daw euh, nga dem murid may murid ñu ne ngay ñu noonoonte sa jikko mën na maa bañ a neex nag mën naa laa bañ a farakaat waaye noonoo moom ku koy defa murid ku ne war ngaa xoolaat sa bopp loolu laa loolu loolu loolu moom euh, bëgg samay samay samay réalité bu nu bëggee sëñ Tuubaa roy sëñ Tuubaa gëm sëñ Tuubaa doyloo sëñ Tuubaa Euh, yàlla bi sàkk suufam sàkk cere sàkk dugub cere suuf si di euh, dugub di jógee si suuf si euh, ñu def ko buuraake mu saf suukar ñu samp ab bant mu di màngo mu meññ saf suukar yàlla moom dara jomb ko ci mu war a def suuf si muuraake ndax bëgguñu bu ñëpp maasee bëgg Sëñ Tuubaa bu ñëpp bëggee maasee bëgg Sëñ Tuubaa lépp dina yomb incha allah di sant yàlla bu baax yiy julli ci yonent bi di wax jee suñ Tuubaa ji naa na si mun taxa suñu boom bàyyi na ko fi lu yàgg te ànd ak wér ak kattan ak sago bu lim yéene liggéey suñ Tuubaa lépp def ci lu kawen jot ñun nag suñu boom dañoo nattu mën wax dañoo dañ ko dañ ko baaxewut mënuñu ko yi tamit nag xanaa lii day natt suñu boom bu bu teguñu ci suñu kaw waaye ñu wax ma mun ñu ko xanaa ñaan rek eh, sëñ bi nga xam ne lépp ci moom la sabab bi ci moom la la soqee koo xanaa ñu ñaan ñaan ko suñu borom defal ko li li mu ci yéene te fas ko ci te jublu ko ci suñu borom defal ko ci te defal ko ci lu kawe njortam te ànd ko taalibe yëpp jullit ñëpp. asalaam man daal dama mënta wax moo tax. xam naa sëñ bi li ma ci wax moom bariwul euh, dëgg la moom li mu wax euh, lépp dama koy dëggal ndax jàkka ji fii maa ko doon jiite euh, bañ koy inauguré ci commencement bi sëñ bi joxoon ndigal lépp li fi dama fekk. xool réseaux sociaux yi di ma ci gis waaye lenn laa ciy wax daal loo xam ne bariwul yonent sallallahu dafa wax ne maanaam mbir moo gis rek yéen a jë moo ci am solo. am ko ko tënk ci wolof nag innamal amalu binniyaati kuy ñaw te fa sawooñ wa nag mbaras ma dayaa di jagati eh, <laughs> foofu laay tënkee say wax waaw mbir moo gis rek yéen a jaa ci am solo innamal amalu binniyaati kuy fas te kuy ñaw te fa sawooñ wa nag mbaras ma day daal di jagati